ak gelam. góor ñi nag loolu lañuy def nag tey ma mais pour man loolu surtout am fa quoi. loolu nag kaay ma wax la góor ñi loolu lañuy def man gis naa cas xamante ni man. mbuur man loolu daf ma man daf ma dépassé. Mhm. man maa si teg sama bët. man moo lu ma xamoon nag doo ko wax. Mhm. parce que je suis très honnête même. Mhm. koo xamante ne nii jabaram dafa fay. bi jabaram fayee mu takk beneen jabar. ci kaw fay bi. ci noonu mu dem lal ba jabaram doon tëdd te iddaam matul. mu tëdd fa xale bu jigéen boo xam ne da war dina takk suuf la ko def. Eh? Hmm? waaw. Ah, réew mi. nee naa ko ah, mais tax na ko moo gën njaaloo moo gën. nee naa ko nee naa réew mi tànk yëpp mi ngi ci kaw bopp yëpp ngi suuf réew mi moo toll foofu réew mi moo jaxasoo. Hmm. nit ñi léegi xoolatuñu li yàlla santaane dañuy xool leen seen naf sa bakkan ñu jox. Hmm. ak leen seen conscience may. loolu ñuy dundee te loolu c'est pas ça. dëgg la mais oo Mass ma laaj la leen. tey nga nekk góor. di dund moom. bànneex dem ci ngeen di defante ay appel vidéo lu nekk. Mm. ngay yor ay vidéo muy envoyé la vidéo nga garde ko bis jot ngeen xula wala dara di nga ko weer. noonu non man duma la weer wax dëgg yàlla. Mm-hmm. ndax bu doon damay weer rek man xam naa fi nit koo xamante nii mm-hmm. ñoo nekkoon ba ma ko xamee. gis naa ci téléphone am ay taatu xale jigéen yoo xamante ni nii moom loolu moo koy def plaisir. Mm-hmm. ëpp na vingt cinq ay taat <laughs> damay wax naa. ba ma ko gisee ci biir téléphone am bi envoyé naa lépp sama bopp maa ngi ko gardé ah xoolal pour jàpp otage yaa ngi dégg ko jàpp otage de parce que damay damay xaar ba xale yooyu di ma tàppaas xam nañ ma bu baax <laughs> ma jéem a tëbantu sama kaw ma wàcce leen seen donkaas yi. ci une minute. ça veut dire que moom foofu moom defante defante moo te xoolal nit ku ma xam la fii ci dëkk bi. Mm. xale yu jigéen yoo xamante ne ñu ngi tëbantu di undilewu di jaay maanaa cikki-cikki choco-choco. te mm. ñoom ñëpp seen taat yi mi ci biir téléphone boobu. Mm. mais mais mais te dama transféré lépp sama bopp téye. Mm-hmm. yaa ngi dégg yow kon yaa ngi tànn bëri ci ñoo xamante ne ñu ngi di wax di dox di lijjantiku. Mm-hmm. di dox seen i service ak lu mu ci mënti di doon ñu ngi fi jaruñu dara mm-hmm. mooy loolu. mais Aliouma foofu sutura mënu foofu sutura amatu fa parce que le temps que nga jël sa téléphone nga jàmm euh, transférer ay données. maandu maandu amatu fa maandu ma de sax. <laughs> Ah, waaw dëgg nit ki da wax rek te yàlla. loolu ma ne ci yow. maanduwuma foofu. Mm-hmm. ndax maandu. baax na ci mm-hmm. am naa xam nga mm-hmm. naa sutura. ça veut dire que foofu ci li ma dégg sa xalaat mooy bu ne ko fekk sa néeg euh, mu nekk sa kaw soxna. man du n'importe qui laay suturaal peut-être xaw ma def naa fi loo xam ne war nañu maa suturaal wala mais man xam naa sama bopp yooyu noonu. mais tey jii nii am na nit lu mu lay def man loo xam ni mënuma ko garder sama xol mieux vaut ma génnee ko ba moo gën ma fi feebar di dee yu kenn xamul dee bi dafa gaaw mhm. tey jii nii ma nekk ak nit mhm. def ma loo xam ni metti métti na ma man maa ngi ay vidéo maa ngi ay image ak lépp sama eh, yow fu musuma ko partage yow ay eh, <laughs> eh, ay image boo xam gis nga di ci <laughs> loo xam ni fam loo xam ni <laughs> gis nga <laughs> léeg-léeg nga romb la léeg nga romb ay ñi ñu lay tàcc mm-hmm. te boo xamle woon lu tax ñu lay tàcc ñépp wàcc seen loxo mm-hmm. li nga xam yow ci nit ki ba di ko wax mm-hmm. yow xam nga sa bopp lu raw loola wallaahi te waxoo ko waaye oustaz oustaz de la nouvelle génération est là waay oustaz la nouvelle génération est là yàlla xam na lu raw ci yow doo ko de. Mm-hmm. man cautionné wu ma jigéen du am borom kër ba pare. Mm-hmm. dem di def leneen. dëgg la mm-hmm. déedéet kooku mënu ma cautionné. waaye tey jii yow dox nga am na ci ñoo xam ne tey jii. tàggoon nañu ak seen i soxna. wallaahi laaj nañu leen ba tàyyi lu leen tàqale du nu ko wax. si du nu ko wax. parce que bëgg nañu suturaal seen soxna. waaye dafa jógee bitim réew ñëw fekk soxnaam tollu diggante. mu ne damay fas sama jabar bàyyi ji woo ko ba mu ñëw mu ne ko ba mu ñëw mu ne ko bi nga nekkee bitim réew xam nga at la mu ne ko waaw mu ne ko waatal ma yàlla ndax mosoo faa jotee ak beneen jigéen bu dul sa jabar mm-hmm. doom ji ne ko ah bàyyi ji loolu mënuma ko waat mu ne ko kon nag suturaal ko mm-hmm. ndeysaan waaye fii góor yi fi mën a waat nit carrément turam fi wuñu seen jabar bëriwul ah, ay góor gu ko waay wuy sama ndey góor gu ko waat naa jaxanama kon nag mi ngi noonu. mais mais mais mais mais Oustaz yaa Oustaz ñu sutura la ñuy wax ba léegi. parce que dafa bari si ñoo xamante ne léegi ñu ngi si réseaux sociaux yi di wili paande doomu jàmbur yi. Mhm. maam dañ siy jox exemple rek parce que comme Adamo lañ fiy gis. Euh, moom mi nga xamante ne moom mooy jël ay vidéo di di tasaare. te loolu dañ fa war am sutura kon ça veut dire que moom Adamo lan mooy attam fa ëllëg yow wala xam. Adamo. tey ngaa bàyyi Adamo. ah déedéet ma fay ñu waxtaan. xaritam la xaritam la moom la moom la moom la moom la moom la Mm-hmm. man xamuma aar <laughs> mais dama xam ne bés bu ma commencé def vidéo yi ba tey mm-hmm. ñi def naka su doon noonu mu leen di weer mm-hmm. boobu ba léegi xoolal ci la fi yenn yi wàññi ci la jigéen ñi am conscience uh-huh. bu la doon tegal million tey doo defal ji góor appel vidéo mi ngi jàngale an kay mi ngi jàng kaamee nit ñi foofu lañ toll nit na ragal ndax nit ki di nga ko ragal sax naa alalam nit di ko ragal ndax làmmiñam nit di nga ko ragal ndax yor gi mu la yor foofu la toll di Adamu benn part boo gisee nee naa ko am na vidéo yoo xamante ne tey boo ko Adamo génne woon. Mhm. Cheikh Abdou Karim Naly génn réew mi day tas. yu bari génnewu ko. Mhm. parce que amaana nekk nañ ay yëfi kilifa wala ñu dend kilifa waa ñu jege kilifa. Mhm. yaa ngi dégg mais ba mu ko fi commencé def ba léegi léegi wàññeeku na fi. bu baax sax wàññeeku nañ fi mm, bu fekkoon ku rey nit. nee naa ko ñu def la nit ñi mm-hmm. ni def Adamo ni muy def nit ñi. wala itamit ko fi sàcc ñu def la noonu defe naa sàcc bi jóg fii fi gëj a dégg dégg ma jàppee sàcc yi rëqate leen ban leen leen ba ñu mel ne xartaras ci nga fi gëj a dégg gina gina atte bi foofu la toll ku sàcc ñu dagg sa loxo uh-huh. fen ñu dagg sa làmmiñ ku mooy yàlla ñu dagg sa kii <laughs> c'est ah. point un trait kon Anita moom tamit da nga xam